monsieur le ministre monsieur le président monsieur le ministre des finances avec le ministre chargé des assemblées monsieur Samba avec l'ensemble des cadres yi nga ñëw ak nous sommes ngi leen mais bu temps mais service monsieur le ministre je vais commencer d'abord. damay gërëm président de la république Macky Sall ndax fii daaw bi ñu def orientation budgétaire dama waxoon si daara yi ne nañ jël daara yi en compte jéem a dugal xale yi ren il a reçu l' ensemble des daara des sëriñ daara dikk leen ne leen dina leen defal ay ay seen seen inspection dina ko changé def ko direction dañuy wax ne que nag direction bi bu ñu sañoon mu def ko agence beneen bi ci des mooy daf leen dig vingt sur le fonds de concours pour ñu dimbale daara yi te xam ni ne bi ñuy def budget bi jëlu leen ko woon en compte damaa bëgg ngeen jël ko en compte ndax vingt pour il faut ngeen boole ko ci daara yi pour que daara yi buñ ko jëriñoo di ko remercier ci hôpital El Hadji Malick Sy bi nga xam demandé woon nañ ko ko mu accordé ñu ko di ko delluwaat encore di ko remercier ci la route de Pambal ak la route de Mewane Il ay demande la yoo xam ñu ko orientation budgétaire ren mi dans le budget de cette année nekk en période de réalisation monsieur le ministre je bi may wax mooy damay def benn plaidoyer pour département le département bi nga il est sur 3121 km cent am industries yoo xam c'est des industries extractives nga xam ni que bu ci sur le code minier dafa am loo xam ne code minier daf leen ko jox te ba léegi le code minier dafa dans son euh, chapitre 6 article 112 si je me rappelle bien dafa wax ni que kenn ku ci nekk war nga ñu am participation wu les instituts minières dans les communes de 0,3 je pense ou le 0,5 sur le chiffre d'affaires wax ne aussi dañoo war a dimbali sur la RSE wax aussi que dañoo war a dimbali ci lépp loo xam ne rek war nañ ko defar au niveau des commune moo wax ne secteur bi nga xam ne mooy département Tivaouane industrie yi respecté wuñu li nga xam ne moom nañu wax ci bi sur la RSE amul kenn benn industrie boo xam ni mun na teg baaraamam ne defar naa lii benn commune ci biir commune yi ça n'existe pas defaruñu tali yi defaruñu piste yi defaruñu école yi loolu bëgg nañu aussi ngeen bàyyi ci xel benn bi ci des mooy damay bañ a wax ne que phase 1 PUDC département Tivaouane bokk si def nañ ko ba mu jeex amul benn action bu PUDC def dans le département de Tivaouane kon ñun dañu génne woon si loolu modernisation de la ville sainte dañ ko waxoon 2016 lañ ko arrêté bi ñu ko arrêté depuis 2016 ba léegi defaatuñ ci dara bi ñu defee modernisation ça veut dire que ñun amuñu droit amuñu droit Promoville amuñu droit PUDC amuñu beneen droit donc loolu aussi ñu ma fàttali leen ni loolu aussi dafa bokk ci li nga xam ne ñun ñuy bëgg-bëgg la beneen bi ci des mooy monsieur le ministre dafa am ay quelques suggestions rek mu lay wax fii am na projet euh, projet boo xam ni projet yaatal defe naa Ouest Foire lañ ko commencé ak ak Thiaroye projet yaatal damaa bëgg ngeen gën leen dooleel parce que loolu mooy tax ñi nga xam ne ñu participer ci vie économique gu dëkk bi ñu participer ñoo dem ci vie économique bi parce que loolu day permettre ñi nga xam ne daawuñu fay impôt ñu fay impôt day permettre aussi ñi nga xam ni seen këyitu kër yi régulariser wuñ ko woon ñu régulariser ko ndax buñ ko régulariser bu kenn ku ci nekk sa baay bu ñu la nee kaay fay sa këyitu kër di nga ñëw fay bu boobaa dina yokk say recette boo diggante ouest Foire ak nord Foire rek sa fait plus de cent cinquante kër cent cinquante mille kër yoo xam ne ni benn kër këyit amu ci këyit donc loolu si war ngeen ko bàyyi xel bugg naa aussi pour ngeen dimbali aussi ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk si préféreloo bi kooku aussi dama koy waxaat li tax ma di ko tudd mooy développement souveraine bi ñu bëgg dans l' agriculture mënuñu ko am di perte un milliard de mètres cubes d' eau ainsi kenn ku nekk ñu ngi jooy naan Touba dañu bëgg a màggal bu ci ñu am ndox li ñuy jooy yëpp préféreloo bi rek moo ko mën a régler leneen mën ko régler maa ngi jéglu di leen remercier merci